ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo mi FM waaye laata loolu ñu lay wax euh, jaajëf ñu lay jaajëfal bu baax a baax vraiment ci sa OFT ak sa disponibilité ginnaaw bi nga ñu nangool suñu invitation bi lee euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mbokki auditeurs yëpp ñiy teewlu ci mi FM di sant bu baax ci invitation bi ngeen xamante ne am ngeen ko mooy woo ngeen ñu woo fii ñu fas yéene ànd ak yéen émission bi comme ni ngeen ko waxee ci présentation bi duñ ci ñëwaat mhm. ñoo ngi nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm mhm. ñaan suñu borom jële fi mbas bi jàmm ak salaam mhm. merci beaucoup Euh, merci beaucoup à toi également <gasps> euh, tey nag mbokk auditeurs yi dañoo fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci santé bucco-dentaire moom mi nag mi nga xamante ne moom mooy yëngatu ci wàllu woowule ñu daal di tàmbale rek suñu waxtaan docteur Abdoulaye Saré bu ñu waxee chirurgien dentiste euh, en terme ci en terme clair lan lay wundu waaw bu ñu waxee chirurgien dentiste. Mhm. ni nga ko gën miinee ci réew mi muy Sénégal dentiste képp. waaye dentiste yi ay chirurgien lañ moo tax normalement on parle de chirurgien dentiste waaye dañuy dagg baat bi di wax dentiste léegi nag métier moomu mooy doktooru bëñ ci wolof. Mhm. mooy ki nga xamante ne nii moom xam-xamam ci lu màcc jëm mooy faj bëñ ak lu ko wër. nga xam ne nag gémmiñ gi daal ci misaal lay lay lay doon buñ ko dee tënk. Mm-hmm. kooku nag moom mooy ñu tuddee chirurgien dentiste. Mm-hmm. waaw euh, ci wàllu wow xam naa ne am na benn jàng boo xamante ne laaj la ko ginnaaw bi nit ki amee bac ba dem euh, université ban euh, niveau d'étude lay mën a yegg ba mën a soutenir nekk képp nekk kuy kuy fekk li nga xamante ne moom moo di bëñ. waaw fajkatu bëñ yi buñ leen gisee ci réew mi. lu mu néew néew néew di nga jàng ba am sa baccalauréat mooy bac bi ñuy wax ginnaaw nga am sa baccalauréat aussi da ngay def faculté de médecine six ans moom la ñuy tuddee bac plus six ans boo defee sa thèse nag ci ngay am doctorat en chirurgie dentaire. Mhm. ci ngay am sañ-sañu exercer sa métier bi ñuy tuddee chirurgie dentaire loolu boo ko amul rek li ngay def lu ne ci wàll woowu noonu te yoon tënk ko. Mhm. ndax usurpation de fonction bari na fi. mooy xeet yu mel noonu waaye ñu xam ne dentiste bi moom am na bac waaye jàng na juróom benni at soog a doon dentiste léegi nag ñu bari bu ñu leen waxee loolu da leen di jaaxal ndax li koy waral nag mooy li wolof naan bëñ weex na waaye deret ko lal ndax am bac tegaat ci juróom benn at jàng bëñ kase saabu veut que leneen ci ginnaaw bari na lool kon ñu xam ne dentiste yi loolu mooy seen jaar-jaar. Mhm. ci wàllum jàng. Mhm. waaw. Euh, euh, yaa ko wax ci say biiru kàddu mun na am usurpation de fonction mhm. est-ce que jàppaloo ne le fait que euh, njàng mi gudd mun na ko jur je m'explique boo fekkente ne da nga def études yi di dem ci laboratoire yi nga am benn certaine connaissance mun nga jàpp ne instant yi war naa nekk ci marché bi war naa opérationnel avant que bien sûr sa formation di jeex. Mhm. waaw euh, loolu dina koy waral. Mhm. Euh, li koy waral it euh, mooy doon yëngu ci benn cabinet dentaire wala hôpital waaye ba nga fay yëngu yëngu woo foon en tant que fajkatu bëñ muy docteur dentiste. Mhm. mais dañuy tuddee am na lu ñu tuddee assistant dentaire am na leneen lu ñu tuddee leneen ak leneen. miin gi ñuy miin milieu bi nag àgg yàgg ci yëngu yenn saa yi da leen may ñu nekk seeni i ruq ubbi seen barab di fa yëngu. te yëngu googu ñu yëngu nag dentiste si ñoo am sañ-sañ boobu noonu loolu nag bu ko nit ki defee rek dañ koy tuddee ca koñ ba dentiste bi dentiste bi dentiste bi fekk ne amul garaatu docteur boobu ngir def ko. Hmm. te niñ ko waxee bëñ moom dafa sensible juróom benn at lañ koy jàng waaye dafa lëkkaloog yaram bi yëpp nga xam ne tawat mën naa jóge ci bëñ bi laal xol bi laal roño yi laal articulation yi ba xam loolu ku koy def. fu ne mën na faa dem. Hmm. moo tax nag negam demee na noonu du ku jug def ko. Hmm. waaye da nga koy jox àqam jaar fa nga war a jaar bis boo teesee rek. ba am sañ-sañu mën koo def. di ko def moo gën. Euh, fii ci Sénégal bu ñu nee méttiitu bañ rek certainement xel day daal di dem ci li nga xamante ne am moom mooy carie dentaire moom la nit ci gën a gën a gën a gën a gën a gën a farataal di di di dégg ñu bëggoon xam moom rek euh, li ñuy duppee carie dentaire lan moo koy expliquer lan moo koy causer. waaw euh, carie dentaire moom dafa nekk loo xamante ne nii ñëpp ko miin. ndax buñ dee xool ci données yi nga xamante ne nii organisation mondiale de la santé nga xam ne kuréel gi saytu wàllum wér ci àdduna bi dañuy xool dañ ne néewaane nga ubbi benn gémmiñ rek te fekk foofu bañ bu wën nga xam ne prévalence bi day toll ci cent pour cent mhm. nga xam ne koo ci gis lu mu bon bon mi ngi doxaale benn bëñ bu bënn kon loolu nag tawat la tawat goo xamante ne nii yaatu na fépp waaye it yaatu na ci xeetu nit ñëpp moo xam ci xale bi ci gën a ndaw tàmbali am bëñ ba ca mag ba gën a màgget mm-hmm. kon couche population bi ñëpp lay laal buñ ko tuddee carie dentaire nag dañuy xam ne mooy bëñ bu bënn loolu mooy carie dentaire mm-hmm. bëñ boo xamante ne nii dafa bënn bëñ bi nag li koy bënn mooy lekk yi nga xamante ne nii day des ginnaaw bi ñu xewaloo ba pare ginnaaw bi ñu lekkee ba noppi lu mu tuut tuut tuut tuut nga xam ne ñun boo moytu duñ ko gis sax wala mu taq takk bu rëy noonu doomu jàngoro yi ne ci gémmiñ gi dañ koy jëfandikoo suñ ko jëfandikoo ba noppi nag dafa am leneen lu ñuy génne ñoom mooy acide. Mm-hmm. acidité boobu nag moo jonjoo gi muy jonjoog émail bi mooy lii aar bëñ bi loolooy tax mu mu mu mu bënn su bënnee nag ñu tuddee ko carie dentaire loolu nag mooy tudd carie dentaire bëñ bu bënn waaw. Mm-hmm. est que am na lu koy lu ko lu koy saafara wala bu bëñ bi commencé bënn boo yéexee dem ci li nga xamante ne moom mooy di consultation yi. waaw li koy saafara am na waaye saafara gi daa yomb feebaru bëñ moom loolu moo tax mu neex dafa wuuteeg yeneen feebar yi nga xamante ne nii hygiène de vie bi mu lay imposé mm-hmm. day xaw a jafe lool mm-hmm. waaye bu dee wàllum bëñ moom dafa nekk loo xamante ne nii dafa jàppandi li tax mu jàppandi nag mooy nit ki ngir bëñum bënn mm-hmm. faaw yiy daje bëñ faaw mu am balaa ñu wax bëñ bu bënn moom li naan balaa nga naan naam ne fa waaye it faaw doomu jàngoro ji nekk fi waaye faw ñam bi muy jëlee loolu muy lekk ba di ci toggaat di ci génne acide faw ñam boobu nekk fi daje. Mm-hmm. waaye ak li ñuy tuddee temps mooy waxtu boo xamante ni dana ko mën a jël ngir loolu lépp mën a am ngir mu bënn bëñ bi yooyu fu mu dajee rek bëñ bi bënd na. Mm-hmm. kon nag ngir fexe ba bëñ bi duñu bënd dañuy fexe benn ci yooyu deñ rek. Mm-hmm. day mat sëkk. li gën nag mooy fexe ba tàggale ñeenti yëpp. mooy kon fexe gémmiñ gi set ba doomu jàngoro boobu du fa nekk wala bu fa nekkee it. du gis ñam bu mu jëfandikoo maanaam gém yi takkul taqu goo xamante ni dana ko mën a jël ba di bënn bëñ mi mm. loolu buñ ko dee def rek dañuy fexe ba kari daañ ci mucc te loolu nag mooy mesure d'hygiène yi mm. xam naa incha allah daañ ci ñëw ci ci ci kanam incha docteur ci mesure d'hygiène yooyu sax eh, dañ ci taxawani tuuti rek rawatina ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tuut tonk yi moom mooy xale yi on comme l'impression que li ñuy consommer des fois du ñu lekk lu tong ñu ngi leen di préférer jëndal ay chips ay biscuits wala ay ay ay chocolat ndax loolu itamit eh, bu ñu tàmmee lekkin boobu noonu au fur et à mesure ñuy màgg amul lum leen di mën a eh, jural aussi waaw laaj nga laaj bu am solo ndax waajur yi dañuy faral di ñëw ci ñun naan docteur bu xale bi fajoo ba noppi dañ lay cokkaat ne la nga aaye ko sokolaa mhm. wala nga tere ko nàngam fekk na sokalaa dafa nekk loo xamante ne nii ci li ñuy dundee la mhm. te it muy jox xale bi xeetu mën nañ ko tuddee ferñeent yoo xamante ne nii gone gi mënu koo ñàkk mhm. kon lekk sokalaa moom lu war la lekk leneen it mën na ko waaye li ñuy bañ ci wàllum gémmiñ gi mooy mu lekk ko ba pare te borosuwul mooy raxasul gémmiñ gi nga xam ne jëmmi lekk gi moom indiwul bëñ bu bënn waaye lekk yi ñu koy lekk mu di fa des loolu mooy bënn bëñ bi kon bu ñuy fexe ba gone yi bu ñu jëfandikoo ba pare muy xewlu ñuy fexe bu nu waree socc ñu socc mm-hmm. suñu waree boros ñu boros rek lépp day daal di yomb mm-hmm. waaye it dafa nekk loo xamante ne nii gone ga fa mu koy xam nga fa muy amee bëñ tolloowul ak fa muy mënee toppatoo gémmiñam mm-hmm. nga xam ne liggéey bu njëkk waajur yi ñoo ko war a def liggéey boobu nag bu ko waajur yi deful bàyyi wuñ ko xel xale ji fa muy tolloo ci loxo yi jag dëgg-dëgg ba tolli ngir mu toppatoo ay bëñam fekk na la ëpp ci bëñ yi yàqu na moo tax dañ gis ñoo xamante ne nii seen bëñ day yàqu lool fekk na du ci ñoom waaye waajur yi ñoo leen waroon toppatoo seen bëñ ba ñoom ñu mën cee toll jël relais boobu malheureusement nag période boobu ñu nekkee xale daaw ñu ko def mm-hmm. tey bëñ yi bënn yooyu ginnaaw sokolaa bi jigéen ñiy nàmpal rek mais moomu ñu soo moom soo moomu ñuy nàmpale rek da ko waral mhm. ndax dañ ci gis koo xamante ne nii day jël doomam mu sonal ko jooy bari rek mu seqal ko wen bi muy nelaw ci kawam. Mhm. te ku ne xam ne it soow moomu wala meew moomu xale bi di nàmp dafa am yooyu bactéries di jëfandikoo. daje googu muy daje ci gémmiñ gi bu ko fekkee it mu am bëñ yi bëñ yooyu dañuy yàqu mm-hmm. ba tax na moom li muy bañ daal mooy lekk gi di daj ci biir gémmiñ gi mm-hmm. ba doomu jàngoro yi di ko mën a jëfandikoo di sécréter acide boobu ñuy wax ngir bënn bëñ bi mm-hmm. euh, ndax ci fànn woowu soxal tout temps yi di ngeen ci di farataal di sensibiliser waajur yi bu fekkente ne bien sûr consultation bi jeex na waaw loolu bokk na ci ndax euh, enseignement à l'hygiène orale sax moom ci prestation yi à la bokk. Mm-hmm. mooy jàngal nit ki nu muy toppatee bëñam waaye teewul ñu ëpp ci dànc si boo demee ci ñoom ginnaaw bi ñu la fajee ba pare seet la dinañ la wax nangam lii lii moo ko waral soo fi bañatee ñëw wala ngay bañ mu dal la da ngay moytu lii ak lii wala dangay dundee nii ak nii. Mm-hmm. loolu nag yenn saa yi mu ñàkk bañ am waaye ñàkk bañam gi li koy waral mooy xat gi dànc si xat. nit ñi toog di la xaar kenn ku nekk am métti di faju yenn saa yi boo fajee ka ngay faj ba pare rek da nga koy gaaw bàyyi mu dem ngir nga mën a jël keneen waaye waxtaan woowu leeral nit ñi sensibiliser leen loolu dafa bokk ci suñ mission buñ amul occasion def ko ci cabinet yi nag mhm. mooy waral émission yi mooy waral euh, tournée ak caravane de sensibilisation yi moo wane campagne médicale yi ñuy def ak yooyu Euh, euh, docteur bu weesoo carie dentaire bi nga xamante ne ñu ci gën a bëri xam nañ ko ah, mu mel ni moom mooy jàngoro bu gën a bëri ci wàllum bëñ am na itamit lu ñuy duppee gingivite xaw ma nag lañ koy waxee ci ci ci ci wolof gingivite moom euh, nu muy manifesté wu ak yan douleur lay lay nit ki di ci di di di farataal di ressentir. waaw laaj boobu am na solo lool ndax bëñ bëñ yi lañu miin. waaye ginnaaw bëñ bi wolof dane bëñ weex na waaye dereeta ko lal mm-hmm. loolu lal ko nag mooy muur ko moom lañ tuddee gencive wolof naan ko ciiñ ciiñ boobu nag heure bu feebaree rek moom lañuy ñuy tubaab di tuddee gingivite mooy ciiñ bi dafa feebar mm-hmm. moo tax yenn saa yi nit ki ñëw ne sama bëñ bi de dafay metti dafay nàngam ak nàngam nga ñëw ci dentiste mu xool la daane la bëñ bi dara nekku ci mm-hmm. waaye ciiñ bi moo feebar ci bën bi nag ñi ko yàlla bindee bu ñëwaatee tuuti ci li ñuy tuddee anatomie mm. mooy bindin wi nga xamante ne nii suñu borom bind na ko mooy ne ginnaaw bi mu sàkkee bëñ teg ko da ko jël yax mu muur ko yax boobu moo ko téye ba bëñ bi du yëngatu mm. ginnaaw yax boobu nag ñu jël ciiñ teg ci ba yax boobu du feeñ léegi nag ciiñ bi bu feebaree la muy njëkk manifesté woo li nga laaj mooy day njëkk di mel na luy gonfale neewi neewi gi nag daanaka foo siñ ba tàmbalee ci bëñ bi lay gën a lay njëkk laal su yàggee muy nàcc nàcc gi it ñaar la mooy ma sotti walla ma borosu mu nàcc moom lañ tuddee saignement provoqué. Mm-hmm. waaye am na beneen saignement boobu nag mooy bi gën a bon mooy nga jékki-jékki rek tifli gis mu nàcc. Mm-hmm. nga xam ne sori na sori goo xam ne soxlaatul sax ñu koy wokk muy nàcc waaye boo tiflee képp mu nàcc su boobaa nag la muy juraat mooy dañuy quitté feebaru ciiñ bi dem ci feebaru yax bi. ñu ngi tàmbalee dugg ci parodontite ndax siñ bi ci kaw la ne yax bi na ci suuf mm-hmm. siñ bi nag bu feebaree ba summiku mm-hmm. yax bi day feeñ mm-hmm. yax boo wutee bëñ bi nag bu tàmbalee kee lekku rek mooy nga gis ne bëñ bi nekkul dafa am karite bënnul deful dara kon bëñ bi moom wér na. Mhm. waaye tissu de soutien yi mooy lay téye bëñ bi ak la ko wër moo feebar. Mhm. su boobaa nag bëñ bi da ngay gis mu yëngatu boobaa it amul njariñ dindi rek mën def ngir mën a euh, taxawal euh, tawat googu muy euh, feebar boobu doon am. d'accord docteur Abdoulaye Saré bëñ boo xamante ne dañ ko yéex a traité hormis douleur yi nga xamante ne nit ki dina ko yëg bu weesoo loolu ndax amul leneen lu mu ko mën a jural comme gàllankoor ci ci ci wér wér gu amul beneen feebar bu mu mën a waaw loolu de moom mel na ni waxuma la feebar sax waaye bakkan xaj na ci tey bu njëkkoon daana am waaye jamono ji nit ñi xaw nañ cee yeewu tuuti bay xaw a teel a ñëw ba mu xaw a tane loolu nag li mat a xam mooy nit ñi ñu xam ne feebar moom ñoom dañoo yaakaar ni mettit mooy feebar fekk na nit ki mën na feebar wopp ba àgg ci lool sax te yëgul benn mettit moom lañ tuddee pathologie chronique wala maladie silencieuse yooyu nag ñoo gën a garaaw ndax ni ma koy faral di misaalee mooy mu ngi mel ne ku jël loxoom teg ci taal bi day lakk mu bàyyi. Mm-hmm. xam nga yëg na mettit mettit boobu dañ koy jàppee lu bon mais yenn saa yi dafa baax ndax lu ñuy protéger la lu tax mu ñuy protéger mooy su ma lakkul woon du ma teggi sama loxo kon teg googu ngay teg sa loxo yëgoo dara. sa loxo day lakk ba jeex kon mettit boobu bu agsee lam ñuy wax mooy jugal dem fajo ji waaye it nit ki dana am feebar lool te du yëg mettit mooy li jiitu beneen bi ci topp mooy ñu xam ni tawat gi ci boppam daa nekk loo xamante ne nii heure bu ñu ko jëlee ci boppam ci jëmmi nit ki bu dee feebaru bëñ damay faral di tooñ samay malade yi may seet si buñ agsee ak métit fajaru teel nga xam ne 6 heures du matin ña nga di la xaar boo agsee ñëw la ma lay njëkk a wax mooy sàggan nga de sàggan nga xaw laa reetaan loo tuuti ndax xam naa jaaxal nga man mu xawaree ma ne ko yow fi mu ne nii bëñ bi moo la indi wala yaa indi bëñ bi. Mhm. nga xam ne ko wax day daal di reetaan. Mhm. ma ne ko bëñ bi indi la ak yow nga indi bëñ bi bokkul. yow soo indee bëñ bi mooy da ngaa jékki-jékki rek sant ne keroog de naan naa ndox mu xaw a sedd. wala de bi ma naanee kafe gi xaw naa metti mhm. wala bi guddi xaw naa jam. nga gaaw ñëw yow yaa indi bëñ bi. baa nga jékki-jékki sax ne man de dentiste ba gëj naa fa kii faj bañ gëj naa fa xaaral ma dem mu xoolal ma donte yëguma dara yow it yaa indi bëñ bi waaye boo toogee ba bëñ bi di metti munatoo nelaw munatoo toog munatoo tëdd nga ñëw indiwoo bëñ bi waaye bëñ bi moo la indi nit ki nag saa su ne moo war di fexe di indi bëñ bi ngir ñu xoolal ko ko mm-hmm. waaye saa su ko bëñ bi indee rek mooy loraangee ngi tàmbalee am mm-hmm. bokk na ci loraange maa ngi la ko wax ne bakkan xañ na ci mooy li ñuy tuddee cellulite yi cellulite yi mooy lex yi nga xamante ne nii bëñ bi day metti ba lex bi neewi lex boobu nga gis mu neewi neewi neewi boobu yëpp dëtt ca ne dëtt boobu nag day diffuser maanaam day wal di dem. day wal diffuser diffusion lay def mooy day wal di dem. Mhm. nga xam ne bu dugg ci suuf yi da ngay gis ñoo xam ne day neewi jëm ci kaw bët ba mën naa indi problème yu garaaw. Mhm. am ñoo xam ne bu dee bañu suuf la day wal jëm ci waxu gi. kooku mën na koo indil ay problème respiratoire bu walee nag ba ñëw ci dënn bi daana am bu njëkkoon nit ki day faatu ndax daanaka pronostic bi muy ñëwee day xaw a doy waar lool lool. day ndaw lool. te la koy waral mooy bëñ bi yàgg naa metti lool muy dem faslu di dem pharmacie di jël garab ak ñëw dem fee mottu fële nangam ak nangam yooyu yëpp ngir mucc ci mettit te ne métteetul waaye feebar ba juggu fa. est-ce que yaa ngi dégg li ma wax mooy mocc na mu sedd. Mm-hmm. dem na pharmacie jël garab mu sedd. walla sedd na waaye taxul mu wér. Mm-hmm. kooku nag bu duggee ci phase yooyu noonu tegle ko fa muy ñëwaatee rek day xaw a day waar lool moo tax. teel a jug bi am na ci solo lool te mooy xob bi ko balaa ngaa lakkale rek. Mhm. te daw ca ba ngay am yi tànk. Euh, justement docteur est-ce que euh, suñu askan wi farataal nañu di dem def ci li nga xamante ne moom moo di consultation ci euh, dentiste yi ndax bokk na ci suñu suñu suñu suñu culture ñu nga jékki-jékki rek ne damay dem def sama consultation même si aw ma benn douleur bu may yëg. waaw fii de. Mm. buñ ko dee gis bu dee téeméer. Mm. kenn koy def. bu dee réew tubaab yi nag day doon calendrier yoo xam ne dañ koy teg ba nit ki bu jotee rek day xam ne damaa war a dem ci dentiste mu dem. waaye mu ngoog day bokk ci agendaam. Mhm. fi mu ne nii nag li ci war liñ ci digle mooy am na lu ñuy tuddee lu ci mel ne détartrage nga xamante ne nit ki bëñ bi bu liggéeyee at ba at da ngay gis ne bëñ bi day commencé am ay mbir yu zone yu cay taq. loolay waral nit ki lu mu bon bon bon bon bon. Mhm. at mu jot war naa dem ci dentiste mu xool ko su ko xoolee. lépp loo xamante ne nii tàmbali woon naa yàqu dana ko mën a teel a lijjanti waaye li nga xamante ne nii moom nit ki am cetu bëñ di borosu suba ak ngoon guddeeg bëccëg du tee mu am ko muy tartar boobu nga xam ne day takk day takk ci bëñ yi mm-hmm. bu ko dagalee at mu mën a ñëw ñu mën koo raxasal gémmiñ gi mu set ngir mu mën a wëyaat ba fiw ak at mm-hmm. ndax tartar boobu mooy indi gingivites yi mooy indi parodonti di yax bi yàqu yi mhm. nga xam da ngay jékki-jékki li cëpp mooy dal mag ñi bëñ yi yëngatu jàppatul fenn mhm. ndax yax ba téye woon bëñ bi lekku na te bi ci gën a garaaw mooy dafa am boo xam ne dañ koy gis boobu nag mooy ku sàggal lool lool nga xam ne bëñ yi day tilim zone ba boo tollee fee di ko séen am koo xamante ni nag bosam am na ko waaye ci biir signe bi la ne du ko gis mhm. voilà kon kon la may tegtale mooy ne ki ko am ak ki ko amul at mu jot nañ ñëw ñu seetal leen ko bu waree dindi ñu dindi ko def li ñuy tuddee maintenance ci bu doon matériel. Mm-hmm. nit ki mën a doxiwaat ay ay ay soxlaam. Mm-hmm. Euh, docteur dañu des ba léegi ci ci ci wàllu woowu rek dama bëggoon xam rek bu weesoo carie dentaire bi nga xamante ne expliqué nga ko ak gingivite bi euh, fii ci Sénégal euh, ban méttitu bëñ la askan wi di gën a farataal di feju waaw li ci ëpp nag. mooy carie dentaire yi feebaru bëñ yëpp moom carie ndax carie ni ma la ko waxee sànq. Mm-hmm. biñ ko saytoo ba seet ko. Mm-hmm. néewaa na ñu ubbi bañ te fekkuñu fa loolu. Mm-hmm. muy bëñ yu bënn bëñ yu bënn yooyu nag moo sonal xale yi sonal mag ñi. waaw carie dentaire moom moo gën a ëpp lu muy indi nit ñi. tey nit ñi buñ dee ñëw consultation ci dentiste la ci ëpp it ndax mën nañoo ñëw ci dentiste xam nga loolu ñun tuddee motif de consultation. Mm. mooy lan moo waral nit ki di ñëw ci ñun. day gis koo xamante ne nii li ci ëpp métit moo leen di indi nga fukk boo jël juróom wala juróom ñeenti moo leen di indi waaye am na ñoo xam ne métti du leen indi. Mm. mooy ñu néew ci nit ñi dañuy jékki-jékki rek yëg ne gëj naa ca dentiste naa dem mu xoolal ma. ñu néew a néew a néew a néew. waaye am ñoo xam ne it dañuy tuddee gène moo leen indi lu ci mel ne gène esthétique. Mm-hmm. par exemple jékki-jékki bañ bi wadd mu jàll. yàlla mu nekk jaalu kanam mu ñëw kooku it motif de consultation la ci nit ki di ñëw di ñu seet si waaw mm-hmm. Euh, ku feebar da nga war a dem hôpital certainement ñu euh, bindal la ay ay ay garab jox la ay rendez-vous euh, damay ñëw rek ci li nga xamante ne moom moo di nees naka nañ koy nay fejee ah dañoo baaxoo ci suñu ci suñu culture boo amee jàngoro bu mu munti nekk ah mais comme tey bëgg la ñuy waxtaanee am na yenn fecc traditionnel yoo xamante ne dañ koy baaxoo di def moo xam ñu ne la da ngay jël laaj wala nga jël ci njeex wala clou de girofle muy xorom polle eh, est-ce que loolu bu atténuer la douleur comme ni nga ko doon waxee wàññi métit bi est-ce que amul aussi li muy jural euh, doomu aadama bi su fekkente dafa continuer bien sûr di utiliser remède yooyu noonu te demul ci li nga xamante ne moom moo di euh, ci way kër docteur yi. waaw euh, lim ko mën a jural. Mm. mooy liñ doon wax sànq ci waroon ñëw faju si fajuwoo mooy xeetu cellule yi ak yooyu. Mm-hmm. bu dee jëmmi produit yi ni jëfandikoo nag ni ma ko waxee sànq liñ war a xam ci ëpp fajum bëñ dafa nekk faj boo xamante ni ndax wàllum faj da mënees na koo xaaj ñaar mooy li ñu tuddee traitement médical mhm. ak traitement chirurgical mhm. daa am xeetu faj yoo xamante ne nii lenn rek day doy mooy ñu bindal la garab nga dem jël ko wér waaye bu dee wàllum bëñ li ci ëpp chirurgie la moo tax ñu tuddee ko chirurgie dentaire mooy ni li fi gisoo dentiste rek yow sa sa sa jafe-jafe fajo fajoogul mën nañ laa jox garab bu ne nga jël ko sedd na waaye dina ñëwaat ndax sa jafe-jafe euh, fajogul moom lañu tuddee ay solution temporaire alors que y avait une solution définitive boo xamante ni mi ngi woon ca wet ga moo taxoon nii nag nit ki saa su ne donte jël na dara mu sedd moo xam dafa gëm mocc mocc lu ko mu sedd moo xam dafa gëm fas fas lu ko mu sedd moo xam daa dem pharmacie pharmacien bu jox ko benn doomu garab mu jël ak lu mu mënti jëfandikoo wala xeetu clou de girofle yi mooy xorom pole yeeg la ci def lem ak lu ne su seddee it bu noppee na gaaw dem ci dentiste mu xool ko léegi nag bu dee yooyu nga tudd nag moom jëfandikoo gi ci boppam moom yooyu moom nekkul luy lor doomu adama mm-hmm. ndax dafa nekk ay substance yoo xamante ne nii c'est des substances naturelles mm-hmm. te yu yooyu moom dafa baax sax ci doomu aadama far mm-hmm. te it bokk na ci ñun li ñuy jëfandikoo di faj sax am na ci yoo xam ne à base de kilo de girofle la mhm. donc dafa nekk yoo xamante yu am solo la mhm. waaye da ci am solo nit bu ko jëfandikoo mu sedd it bu seddee nga xam ne samedi la woon dentiste duñ liggéey samedi du liggéey dimanche bu xëyee altine war naa dem ñu seet ko waaye warul dëkk ci loolu rek mhm. waaw euh, wax nga ko dafa am ñaari traitement traitement boo xamante ne certainement da ngay jël ay comprimé ak traitement boo xamante ne dafay nécessiter intervention euh, ci ban degré la ñuy defee deuxième option bi waaw euh, bu dee nag wàllum faj moom bëñ. 99 pour cent yi moom mooy li ma wax sànq faaw dentiste laal la. Mm. ndax c'est chirurgical. Mm. donte dañuy plombé moo xam lu ñuy mënt de teewul nag mu am yenn xeeti ci yoo xamante ne nii yu ndaw a ndaw lay doon. Mm. amaana buñ la bindalee garab mu wér. Mm-hmm. yooyu yenn saa yi mu mu mu am. nga xam ne da nga koy jël rek boo ko jëlee mu mu mu sedd waaye loolu lu néew la. Mhm. li ci ëpp moom faaw dentiste bi dentiste bi inter intervenir. Mhm. waaw euh, docteur Abdoulaye Saré nga nekk euh, chirurgien dentiste euh, ñu bëggoon xam rek ndax Sénégal respecté nañu li nga xamante ne moom moo di ratio bi seen lim jàpp nga ne couvrir no territoire national bi. waaw loolu laaj bu am solo la. Euh, mënees na ne bu njëkkoon moom mm. euh, desoon na lool lool waaye it euh, nguur gi def na ci ay jéego yu rëy yoo xamante ne nii moom loolu moom dañ koy seede ñun nag euh, dañoo nekk koo xamante ni ñu nu xam xam nañ ni doxuñu ci ay farantoog yooyu déedéet waaye ku gis dëgg moom da ngay wax ne dëgg ni waaw. Mm-hmm. loolu récemment nga xam ne recrutement yi état bi jël na ci lu bari bari waaye ñi ci ëpp sax fan leen yóbbu sax daa sori lool ci réew mi. Mm-hmm. surtout booy Matam geeg zone nord beeg nga xam ne fu sori lañ voilà ci ci kii nga xam ne la koy waral mooy état ba def na fa ay centre de santé ak ay hôpitaux. waaye it ñu war a am ay dentiste yoo xamante ne dañ fay dañ dañ fay dañ fay war a faj foofu it dinañ ma may ma sàkku tuuti it ci ñi nga xamante ne nii dañ leen yóbbu ci barab yi sori yooyu. Mm-hmm. ndax xam naa ni mën na waxtaan. moo yóbbu gi ñuy yóbbu fajkat yi ci benn barab ci réew mi ñuy bañ dañoo war a xam ne ñun moom faj doomu aadama moo ñu tax a jóg. Mm-hmm. te it bakkan dafa foor waaye ginnaaw payoor gi ñu ciy amee ak ngi ciy amee yëpp dafa am lu ko jiitu. mooy c'est une mission noble liggéeyal yàlla la ndax benn bakkan boo dundal rek boo sauvé suñ borom dana mel na nga sauvé nga àdduna si yëpp kon ñu xam ne nit ñi Sénégal fa gën a sori ci senegal daan di seen fa yóbbu médecin fa yóbbu ak keneen ko fa mënta yóbbu dafa xam ne ay sénégalais ñoo nekk foofu ñu yóbbu ko fa ngir mu saytu seen wër gu kon ak lu mu sori sori sori moom buñ ko fa yóbbu rek la mu war njëkk laaj daal. Mhm. mooy condition de travail waaye bu médecin yëpp lankee ne duñ dem Matam duñ dem Ourossogui duñ dem feneen ak feneen te yow ñu formé la xaalisu sénégalais yi loolu it ça cause problème. Mm-hmm. loolu it nag moom njort naa ni kenn ku nekk war na koo xam xam ne ginnaaw wutum xaalis beeg confé yi ci aj yëpp mooy métier bu noble la. boo xamante ne nii Cheikh Salim Mbacke daana wax naan lu ne mënees na ko cee amee lu ne mënees na ko cee ñàkkee. Mm-hmm. kon ñu jiital humanisme boobu def ay sacrifice léegi nag moyens yi muy laaj nag moom sañ nañ ko imposer état mu jox ñu ko waaye duma dem barab sangam ak nangam ak nangam bu ko ñëpp defee moom njott naa ne ñu féete biir réew moomu ca côté boobu du gis ku leen faj. Mm-hmm. tey jamono yee euh, ministère xawoon na ci am ay jafe-jafe lool. Mm-hmm. loolu nag en tant que ku yëngu ci association humanitaire. loolu moom dama ci lancer appel sama collègue yëpp à ce daal loolu moom ñu góor góorlu ci def ko ngir jëmmi yàlla nag. Mm-hmm. waaw euh, mais euh, ñoom sax euh, ñi nga wax ne dañ leen yóbbu ci ci ci dëkk yi des fois li ñuy wax ne moo tax duñu duñu duñu nangu dañuy wax que ne certainement Dakar la la lépp nekk plateau médical bi fii la lépp nekk est-ce que loolu tamit c'est vrai war nañu dem liggéey foofu mais est-ce que ñoom laata ñu dem foofu jumtuwaay yi matériel bu ñuy ñuy wax waru leen mën a jiitu ba ñoom bu ñu demee euh, mën a liggéey ci anam bu mucc ayib. waaw foofu it dañoo séddalikoo ñaar. Mhm. ndax bu dee wàllum médecine surtout spécialité yi. lu ci mel ne ay gynéco mhm. ay neurologue ay yenn yi dañuy soxla yenn matériel yoo xamante ne nii yenn barab yi bu ñu leen fa yóbbu it te amuñu xeetu matériel yooyu day mel ne am fa njariñ dëgg-dëgg dana des mhm. waaye am na ci ñoo xamante nii ci ma leer yoo xamante nii fan leen yóbbu mën nañ ne ca si mhm. doomi réew yu nekk foofu. Mhm. dara manqué wu ca. moom kay damaana fu amaana foofu jubluwu leen loolu nag ku ne sañ na ko. Mhm. ñu yóbbu la fenn nga ne foofu moom bugguma faa dem sori na nangam ak nangam. waaye dañuy seet ne bu ko ñëpp defee du sotti. te alalu réew mi lan la formé. comme ba xam dégg nga bëgg wax. Mhm. bu ko ñëpp defee. Mhm. du sotti. Mhm. waaye ñun ñu koy bañ ñëpp alalu réew mi lañ ñu lañ ñu fo il faut rendre à César ce qui. loolu la ga wax nag loolu nag moom da ci am solo daal. waaw. Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Abdoulaye docteur Abdoulaye Sarré mu nekk chirurgien dentiste waaye nekk président euh, de Touba association bokk tamit ci kuréel bi di commerce dañuy dugg ci beneen fànn boobu sax euh, commerce di collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes bu Sénégal euh, semaine bi ñu génn nag ngeen amoon ñaari fan yoo xamante ne da ngeen defoon li nga xamante ne moo di grève daal di sàkku njiit yi daal di respecter lépp lu jëm ci wàllum engagement engagement mooy yooyu noonu ginnaaw bi ngeen defee grève autorité yi na amaana ma ñu bëggoon rek nga euh, dellu si ci engagement yi nga xamante ne jàpp ngeen ne respecté wuñ ko ba tey ji ngeen taxawal benn kuréel euh, di sàkku ñu respecté seen i droit. waaw euh, laaj boobu dañ ci sawar a laaj. Mm. tontu ndax jamono ji ku ne xam na ni sunu mbokk fajkat yi ñoo ngi ci grève bu metti mm-hmm. grève bi nag ñi koy def mooy docteur yi nga xamante ne nii ñoom ginnaaw bi jàngee. lan war a jàng ba dooni docteur ba noppi dañoo gis ne réew mi manqué na nangam wala ñoom nangam mooy seen passion mooy seen bëgg-bëgg ñu ne dañ koy dem jàngi ndax ku ne xam ne ne faj daa toll foo xamante ne nii génn doon docteur kase taxul nga mën a faj ndax li ñuy tuddee médecin généraliste ngay doon maanaam yow ku ñëw lépp ci yaram bi bu dee am ay feebar tawat yu ndaw ndawa ndaw ndawaan da nga ko mën faj waaye dafa am lu ñu tuddee spécialisation mooy ku xam-xamam màcc jëm ci nàngam. Mm-hmm. ñooñu nag ginnaaw bi ñu jàngee pare dañoo spécialisé wu. léegi nag loolu lay waral yaram bi ñu di ko tas. Mm-hmm. nga xam ne kii dañ naan cardiologue la moom xool rek lay xool daanaka. Mm-hmm. xam-xamam dafa màcc jëm ci xool kii ñu ne moom wàllum biir lay seet kii ñu ne gynécologue la moom jigéen ñi lay seet kii nangam ak nangam ñun ñu seq loolu yëpp nag doon yëngu. dafa am loo xam ne état da ko war seen diggam ak euh, médecin en spécialisation yi. Mm-hmm. waxtaan nag ci lañ dëkk. ndax daanaka ay réunion yu dul jeex tenir nañ ko ak ñoom waaye xeetu dige bu ne ak promesse bu ne jot nañ koo am it waaye gis nañ ni saa su loolu amee it jëfe ga mooy des ndax bokk na ci li nga xamante ne nii ak ak yelleefu ñi nga xamante ne nii ñoo ngi jàngaat. ngir fexe seen xam-xam màcc jëm ci dara mooy spécialisation ci wàllu médecine gis nañ ne li gën a néew ci leen war a yor état bi sàmmoon teg ñoom ci weer wu ne mu jox leen ko da koo tëj muy bourse yi te bourse yi la ci njëkkoon mooy ne dañ doon xeex sax à ce que ñu généraliser ko muy képp doomu réew mi bu jug ne man ginnaaw bi ma doonee médecin dama bëgg a jàngi nangam ci wàllum xol wàllum roño wàllum nangam ak nangam nguur gi moo la war a jàppale ngir defal la lool ndax gis nañu réew mi du ko yittewoo lool. Mm-hmm. kon bu mu ci jëlee ñu néew jox leen loolu muy bourse boobu ba noppi weer wu jot ñu bëgg a toog ay weeri weer te duñ leen jox seen loolu day mel ni day xaw a metti lool. Mm-hmm. te daanaka liggéey lu ëpp ci hôpital ba ñoo koy taxaw ndax ay médecin lañ déjà waaye nekk en formation garde yi astreinte yi ak lépp li nga xamante ne ni ñoo ngi koy def biir hôpital. moo tax gis nga ne fu mu grève rek système bi day paralysé loolu nag sénégalais yi mën nañu koo seddal seen bopp mhm. médecin en spécialisation yi heure bu ñu toogee banque seen loxo rek hôpital boo dugg day paralysé wu ndax bari gin bari waaye li ëpp ci liggéey ba ñu di ko def nga xam ne day duggaale ci wàllum njàng ma mhm. loolu nag kon yokk jot na dëgg dëgg dëgg ministère de la santé waaye ci turu nguur gi ñu gën leen bàyyi xel bu baax a baax. ndax li ñuy laaj dafa yomb. te laajuñu lu mënul ne ndax booy laaj da ngay laaj lu mën a ne. waaye li ñuy laaj lu mën nekk la. Mhm. tey bokk na ci motif de grève yi. Mhm. mooy ne bourse bi ñu leen war a jox weer wu jot. nguur gi di sàmmante moom di leen ko jox waaye di bañ di ko dajale ay weer. Mhm. wala mu koy yéex a fay. na ci li ñuy laaj. liggéey bu ëpp hôpital ñoo ko yenu di ko liggéey te pourtant la hopital bi di liggéey ci xaalis mënuñu ne dañ ciy jomb lii jox leen ko loolu it dafa xaw a ñu koy tuddee motivation hospitalière. Mhm. loolu it dañ ko war a am ndax ñii liggéey ci hôpital bi dañ koy am waaye ñoom ñu ne leen du ngeen ko am loolu it dafa xaw a doy waar. bokk na ci li ñuy kaas mooy statut si ñu seetaat ko. Mhm. waaye bokk na ci stage rural yi nga xamante ni dañ leen koo war a jox nga xam ne waroon na weesu fii. Mm. te ndegam nguur gi mi ngi def ay jéego jëm ci wàllum faj nag njort naa ne bokk na ci jiigu yi ci war a jiitu mooy médecin en socialisation yi ñu gën leen taxaw gën leen jàppale. Mm-hmm. kon loolu moom ñoo ngi ciy woowaat ministère de la santé di ci woowaat nguur gi ñu gën leen taxaw gën leen bàyyi xel. te buñ ko defee rek réew mi yëpp lañ ko defal te gis nañu buñ bankee seen loxo moom système sanitaire bi day day day day tëkkateem bi. Mm-hmm. waaw euh, mu mel ni amoon ngeen daje ak ñi ngànk lépp jëm ci wàllum wér gu yaram euh, certainement. également après seen euh, mouvement d'humeur bi mm-hmm. am na lu fa euh, duppee loo xamante ne mun ngeen jàpp ne buñ ko euh, wéyalee kanam mu ngeen am espoir que même si jafe-jafe yëpp du jeex mais dina am lu ci wàññeeku. waaw ni ma ko waxee sànq rek mooy ne waxtaan moom ñu ngi koy def. Mm-hmm. tey dañoo waxtaana waxtaana waxtaan ba ñun ñi jiite liggéey bi muy waa bureau bi. sunu newle yi ñu jiital sax dañoo dem ba dañoo wóolootul sax ci ñenn ñi. Mm-hmm. ndax tellement li ñuy wax ak nguur gi di wax ak nguur gi waaye ginnaaw ga furaas daal di dem te loolu nag day doon jafe-jafe. tey dégg naa euh, point de presse tey bi président docteur Mbaye ñu ngi koy nuyuwaale mu wax ci loolu. mooy ne waxtaan yi mi ngi am. waaye gisul mu mu jur njariñ dëgg dëgg dëgg ndax fi ne nii daanaka ci lu néew la desee ci ñun. waaye li ñuy waxtaanee li ci ëpp li ci mel ne prise en charge dees yi mooy mhm. docteur yi nga xam ne saa su ne ñi ngi hôpital di faj nit ñi te ñoom buñ feebaree mbaa seen soxna feebar mbaa seen doom feebar dañuy am jafe-jafe mhm. loolu it nguur war na cee wax mhm. moom lañ tuddee prise en charge boobu xanaa yow mi nekk da di fu liggéey di faj ñooñu lu mu bon bon wan nañ laa fexe ba prise en charge boobu noonu même si c'est au premier degré ni ñu ko tuddee nga xamante ne nii du weesu yow sa bopp sa soxna ak sa doom mais mu effective waaye gis nañ ni barab yee dafay am yeneen barab yi ñu ne directeur hôpital bi la ak leneen ak leneen loolu it nguur gi da cee war a jël dogal li ñuy laaj daal man moom seet naa ko ba seet. Mm. gis nga ne sànq ba may wax xamoon sax lii danaa ci ñëw. mel ni ku ma dégg da nga yaakaar ne dama ànd nguur ndax tellement la ma fa wax ak na ma dalee sama mbokk médecin yi. Mhm. waaye tey nag nguur moo war a def kon nañ fexe mu def li mu war a def moom it. Mhm. Euh, jamono yu toll ñu ngi wax mbas mi euh, wàllum mm, feju bëñ maanaam chirurgie ak euh, Covid 19 naka ngeen ko dékkoo naka ngeen koy dékkoo. waaw it au début xawoon naa metti lool. Mhm. ndax li tax mu metti mooy Covid 19 moom fa muy koy jëlee ñëpp di ko daw. Mm-hmm. ñi ko yor sax di ko tëjal seen bopp muy masque yi yow nga ñëw di fa xool sëgg di xool. Mm-hmm. loolu xam nga ne kenn gënu laa exposé. Mm-hmm. ñu exposition lan ñoo ñu ko gënoon def heureusement nag. ba mi ngi doon avancé. di avancé ñu koy gën di xam euh, ay jéego di ci gën a am. ba fi mu ne nii euh, ñu ngi ciy liggéey. nga xam ne daanaka dentisterie sax ci li ma lay wax ni ci sànq ci tàmbali gi ne yaram bi gémmiñ gi dafa lëkkaloo yaram yëpp fi ne nii am na ci yenn xeetu gémmiñ yoo xamante ne nii nit ki bu ko amee rek yow mën ngaa njort ni kii dafa amee jàngoro bi ñu tuddee Covid 19. Euh, euh, docteur euh, Abdoulaye Sarian ñu dem ci beneen fànn waxtaan bi ginnaaw bi nga nekkee chirurgien dentiste waaye ngay yëngatu ci leneen mais ba léegi jëm ci wàllum wér gu yaram ba moo tax nga jiite Touba assistance médicale certainement mu basé wu à à ñu bëggoon rek docteur Saré daal di taxaw ci fànn woowu Touba assistance médicale lu mu woon Koumba. waaw euh, Touba assistance médicale dafa mm-hmm. nekk kuréel boo xamante ne nii day yëngu ci wàllum faj waaye day yëngu ci wàllum fagaru waaye day yëngu ci li ñuy tuddee taxawu askan wi. Mm-hmm. mooy baatu assistance taxawu dimbali xettali nit ki. Mm-hmm. foo koy xettalee nag mooy ci li ñuy tuddee domaine socio médical. mu nekk kuréel goo xamante ne nii un la juddu woon. Euh, muy dox ba léegi nga xam ni mën nañ ne kon am na ñaar fukki at. ci at ren li ko ëmb nag mooy ay médecins ay chirurgiens dentistes ay pharmaciens am nañ sax ay médecins vétérinaires. Uh-huh. nga xamante ne ni mën nañ ne wàllum sant sant bi corps yëpp dafa daje ci biir Touba Sans médical mbooloo mi nañ ci. juróom benn téeméer muy six cent jëm sept cent personnes loolu du ndaw mhm. euh, bu dee ci wàllum présentation loolu la peut-être activités yi nag euh, su ngeen ko laajee mën nañ cee mhm. mën nañ cee duggaale benn yoon. Mhm. Euh, justement ci ci ci wàllu woowu yéen a ko créé en en deux mille xaw ma deux mille un wax nga ko def na vingt ans ci diir boobu lan nga ñu mën a wax ci ci ci ci lan ngeen ci jot a def. waaw liñ ci jot a def. mooy ne dañoo am programme. Euh, annuel boo xamante ne nii dañ koy taxawal at mu jot bokk na ci mooy li ñuy tuddee euh, couverture sanitaire couverture médical mm. yi nga xamante ne nii ay événement lañ koy def bi ci gën a mag mooy màggal Touba mu mm-hmm. ngi ñëw ci sax ginnaaw loolu ay gàmmu ay màggal yeneen yi nga xamante ni day faral di am waaye am na yoo xamante ne nii dañ koy tuddee ay campagne médicale campagne yooyu ci gox goxaan yi lay amee fépp ci réew mi nag. yenn saa yi euh, nga gis benn gox boo xamante ne nii ci biir réew mi wàllum faj yittewoo nañ fa nangam. tourisme médical déplacé wu jël ay fajkat ànd ak ñoom seetal leen waa dëkk ba. Mm-hmm. li ci ëpp nag niñ ciy liggéeyee mooy. population bi ñooy xool ba ne yitti woon nangam ci wàllum faj mm-hmm. wooñ si ñëw fekk leen ci mm-hmm. nga xamante ne nii médecin dañuy déplacé wu seet leen ba noppi duñ leen fayee ko dara. Mhm. bu amee ay garab it dañ leen koy jox may leen ko. Mhm. nga xam ne ci acte yooyu daal lañuy ñuy la ñuy la ñuy doxee mhm. liñ ci gën a favoriser nag mooy population vulnérable yi. ci ginnaaw waaye euh, ak daara yi. daanaka foofu la gënaan gën yëngu mhm. léegi nag la dox dox goo xamante ne nii daanaka sollicitation yi day jóge fu nekk mhm. nga xam ne ba ci biir dakaar sax yenn zone yi ay Kër Massar ak yeneen kii yi yu ci mel ni autorité locale yi maire yooyu yittewoo seen askan ñu leen ko seetal mhm. ñoom bu ñu jëndee lépp lu jëm ci matériel ak intrant rek Toumassane médical day dajale personnel am àgg foofu ñu seet leen gratuitement. Mhm. li euh, ñu ñu ñu bëggoon xam rek euh, ndax euh, da ngeen seen base ci ci ci ci ci ci ci ci yeneen dëkk yi wala Touba rek la la la yem. moom kay yaatu na fépp. Mhm. réew moom daanaka fi ci demul xanaa xaw naa néew lool. te it zone sud bi lay lay lay gën a doon. Mm-hmm. te récemment ñu ngi fay amal ay jéego ndax euh, comme ay cellule la ak ay zone mm-hmm. ak récemment créé nañ Touba Sam médical zone sud. zone sud boobu euh, université bu Ziguinchor moo koy moo koy piloté. Mhm. nga xamante ne ni actuellement am nañ fa base ba nga xamante ne ni ñoom dinañ mën a euh, bénéficier wu ci yi nga xamante ni tourisme médical dina koy dina koy faral di def. Mhm. Euh, ci sa biir wax dafa mel ni am na foo waxante ne da ngeen di def bonne volonté ah ñu bëggoon xam rek yéen ñi yëngatu ci wàllum. assistance médicale ndax da ngeen di liggéey ak euh, jëriñ duñ dénk wàllu wérgu yaram fan ngeen di tiire li ngeen di jëndee moo xam euh, antibiotique moo xam Efferalgan moo xam paracétamol maanaam li ngeen di dimbalee ñi ngeen di jàppale euh, fan ngeen koy tiiree wala ci seen cotisation yi la. waaw ñun nag dañoo jàngal ci béy sa weewu tànk nga xam ne lépp luñ bëgg a def lu ne moom. Mhm. ñun ñooy njëkk làmb suñuy poos def ci. nga xam ne képp ku ci bokk am na loo warlanteeg euh, association muy kuréel gi. Mhm. ci ay cotisation mensuelle ou de des cotisations yoo xamante nit ñi dañ koy def. Mhm. loolu mooy suñu première source de revenu. Mhm. ginnaaw gi nag yenn saa yi ñu am ci ay bonne volonté yu ñu ci jàppale. te li ci ëpp nag mooy laboratoire pharmaceutique yi. ñi nga xam xamante ni ñooy defar wàllum garab yenn saa yi ñu may ñu ay garab. yoo xamante ni dañ koy jëlaat it buñ ko jëlee seet ko ànd nit ñi. ministère li ñuy liggéey nag xaw naa néew tuuti. te loolu ñoo ngi leen ci woo bu baax a baax ndax kuréel gi moom waar réew mi yëpp la fi nekkal. Mm-hmm. te li ñuy def moom la waroon. njort naa ne kon taxawu association bu mel noonu regroupé lu toll noonu ca ay personnel de santé te def ngir yàlla rek tax leen jug loolu it lu ko war la. Mm-hmm. kon lool it ñu ngi leen ciy woowaat bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, monsieur le ministre euh, di ko ci lancer appel. à mu gën koo bàyyi xel te gën cee gën cee jàpp bu baax a baax. ndax sas wi yomb na. Euh, yomb na yombul. Mhm. ndax am na fu muy toll foo xamante ne nii nag euh, ndax ñi ko séq ay murit lañ te boo dee xool ci biir yoonu murit nag dafa am lu ñu tuddee jaayante jaayante nag nit ku koy def moom du dañ koy laaj dix mille fekk dix mille mi ngi ci boosam joxe déedéet. Mhm. waaye dañ koy laaj li ci ëpp lu mu mënul jëf jëf nag ngir jëfal ko sunu borom mooy jëf ngir jëmmi sëñ bi. Mhm. day tax mu fexe ba lépp loo xamante ne nii. amu ko woon sax dana ko jaral mu sacrifier wu moo xam leneen la waroon defi ngir mën koo dugal ci loolu. Mm-hmm. moo tax boo dee xool néewaa na nga gis association boo xamante ne nii àgg na ci doye bii. Mm-hmm. di mën a demal boppam. Mm-hmm. déedéet dam ko dañ ay bonne volonté ñoo yor seen lépp. mais nag 300 médicaments moom yàlla def na activité yi mu daan def te ba njëkkoon li ci ëpp da ci autonome. nga xam ne partenaire ñëw partenaire ñëwul sax daka daan réaliser. ndax effet boobu nga xamante ne nii yoon bi moom duñ ko présenté kenn. ci lépp luñ bëgg a jëf rek Euh, communauté bi dañuy dajale rek teg ci taabul bi ngir ñu jëf ko mhm. waaye nag sollicitation yi day bari mhm. tey negam yemale wuñ ko ci Touba kase mhm. yemale wuñ ko ci ay murit kase yemale ko ci ay jullit kase waaye waa réew mi yëpp lañ ko yaatal loolu dañuy fexe waa réew mi yëpp jàpp ci ndax la ko war moom mooy fépp fu doomu aadama nekk yittewoo fa wàllum faj ñun jàpp nañ dañ ko war a taxaw ci wàllu woowu. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, ñu fas yéene amal li nga xamante ne moom moo di màggalu euh, Serigne Touba Khadimou Rassoul ci ci ci weer wii la euh, deuxième fois consécutive ñuy amal màggalu Serigne Touba ci mbasum coronavirus bi guddi ñu toll ñu ngi wax troisième vague même si autorité yi ñu ngi wax ne tendance bi mu ngi wàññeeku mais terewul bi mu ngi ci. concrètement ci ci ci ci ci période yi yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ci Touba assistance médicale naka ngeen di waajalee askan wi fas yéene jóge ci àdduna wërngël këpp ñëw def seen màggal. waaw màggal bi moom dafa nekk événement bu gën a rëy boo xamante ne nii Touba assistance médicale mi ngi koy taxaw. Mm-hmm. ndax euh, dimension internationale gi mu am envergure gi mu am boo xamante ni daanaka day dajale ci benn barab Touba en un clin d'œil population bi di jàll ci deux millions àgg ba quatre millions ba cinq millions mhm. loolu la fay daje ci mbooloo bari na te néew na au sax ñu di ko gis mhm. ndax aj màkk bi dañuy wax trois millions et quelque donc cinq millions doomu aadama fu ñuy daje ci moment yi yombul mhm. waaye nag niñ ko taxaw woon daaw dañ koy taxawaatee ren te def ci lépp luñ mën ak lu mënul. Mm-hmm. ndax bu ngeen dee xool daaw bi mu agsee it xalif bi ginnaaw la mu war a def yëpp ci wàllum wakilu sunu borom ñaan sunu boromit waaye wàllum àdduna nga xamante ne nii mooy sabab lu dafa taxawal lu ñu tuddee unité d'alerte et de prévention. Mm-hmm. Touba médical nekk ca biir ñu ànd koog sunu jëwriñ sunu professeur Lamine Guèye nga xam ne moo jiite liggéey boobu ànd koog yeneen kàngam ci waa wàllum faj bi ñuy saytu liggéey boobu. Mm-hmm. Touba centre médical bokk foofu it nekk ci liggéey boobu ginnaaw liggéey boobu ñuy def ci biir unité bi dafa am liggéey yoo xamante ne nii dañ koy def lu njëkkoon loolu mooy ay antenne médicale yoo xam ne dañ koy doxal ci biir dëkk ba. Euh, def fa ay fajkat def fa ay ay garab nga xamante ne ni képp koo xamante ne nii jaaxle nga ci sa wàllum yaram xam nga Tuubaa dem ak dikk bi taxul mu yomb ndax dafay daje ci ay millions doomu aadama. Mm-hmm. kon jigéen barab dem hôpital dana jafe lool. waaye it la fay daje xajuñ ci ay hôpital. loolay waral bu accès ministère de la santé jël les dispositions nécessaire fexe nu mu fa yóbboo tout ce qui est matériel médical yóbbu personnel médical boo xam ne ñooy jàppale district sanitaire ba ne foofu. tourisme médical nag ci loolu lay yëngu mooy dina ci réseau yëngu liggéey ak waa réseau médical ci appui personnel ci wàll woowu waaye en dehors personnel médical bi nga xam ne dina ko yóbbu màggal nga xam ne mën na ci 200 personnel boo xamante ne nii dañ koy def ci màggal gi. am na ay tente boppam yoo xamante ni di c'est des tentes euh, ñu ngi koy tuddee poste médical avancé yoo xamante dañ koy def biir dëkk ba ngir mën a gàttandu ñi ku ci yëg loo xamante ne nii amaana mën na laa sonal ñu teel laa faj su demee nag ba jéggi seen i mën-mën ñu yóbbu la ci barab fajukaay bi gën a jege foofu. Mhm. Euh, ndax euh, bu fekkee yeneen yeneen yeneen yeneen moment yi certainement du du xaw a poser problème ndax jamono yu toll dina dina dina dina yomb pour ñu mën a assurer lépp jëm ci wàllum hygiène bi eh, ndax li koy findee mooy wax nga ko ci say biir wax macha allah eh, Touba li muy dajale ci mbooloo dañ koy à peu près nii rek sax mais je pense que nit mënu la jox xayma bu précis bi chiffre précis bi nit ki mënu la ko wax dañuy dem rek ci ay appréciation personnelle mun mm. na ko ëpp fuuf fuuf fuuf ndax ndax dina yomb ak euh, moment bu ñu toll tàngaay bi mu ngi fi inondation bi mu ngi fi guddi yu ñu toll ndax sas bi tey gënu la metti waaw euh, gën na metti waaye euh, xam nga euh, ki woote moom daam lu mu représenté. Mhm. tayit mat li mu doon tayit daaw bi mu koy woote daam lu ci am. mooy ne biñ ko njëkkee dégg waxuma la opinion nationale ndax lu ne dégg nañ ko fi waaye opinion internationale ci boppam. Mhm. ñoom ñoo njëkk a jaxle rek kan moo mën a am sañ-sañ mooy oser fi jamono toll. am tous les événements internationaux dañ ko reporté. Mhm. yow nga mën a lu plus de cinq million de personnes ne leen ñëw leen ci benn barab loolu risque mënu koo wees. Mhm. waaye li ca gën a doy waar mooy bin jàllee gisuñu dara. ñii ñu koy tuddee miracle ñii di ko tuddee leneen leneen waaye mooy li ma waxoon sànq rek moom moom ci woote mbir mi. Mm-hmm. ndigal li muy jox muridi saa su leen ko joxee murid yi dañuy jug loolu nag c'est un aspect purement culturel et spirituel. ndax spirituel ah, euh, mu ngoog spirituel lay doon. Mm-hmm. la ko waral nag mooy dañuy delluwaat ci alxuraan. mooy inna allah mu minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mm-hmm. ñoom foofu la leen seen kilifa takkoon mooy yàlla dafa jënd ci jullit yi seen bakkan ak seen alal moo tax bu sëñ bi wootee sóoratuñ bakkan bu laajtee sóoratuñ seen alal luñ am dañ ko ciy def bu wootee ñu wuy si la leen cee dal sax seen tuuñ ko mhm. saaba yi nag loolu lan àndee woon ak yéen salaam woote bi bu accès noonu lañ koy dundee mhm. nga xam ne donte dara dañ ciy fekk sax du tee dañuy wuy ji mhm. waaye nag ndegam dañuy doomu aadama sunu borom may ñu xel ñuy liggéey di xalaat may ñu loo xamante ne nii mën nañ koo fàggandikoo di ko jëfandikoo di moytu. Mhm. saa su accès toutes les dispositions nécessaires pour que le grand màggal de Touba se passe dans les meilleures conditions. Mhm. sans aucun problème on va prendre ces ces dispositions et mesures. Mhm. incha allahu taala. Euh, ñu jàpp ne kon euh, moment bi ñuy waxtaan nii euh, yéen a ngi ci soobu ngeen ci bu baax a baax te laata ñu yegg ci bëccëg bu màgg boobu ñu jagleel sang bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim lépp dina yemb. incha allahu taala lépp dina yemb ndax eh, màggal gi moom murid yi ni ñu koy waajee dafa doy waar. Mm-hmm. mooy ne buñ màggalee ca ëllëg sa c'est-à-dire le lendemain de l'événement ci la ñuy waaj mais duñ bàyyi ba bu bu déwén bi agsi ñu ne dañ koy waaj. Mm-hmm. kooku nag naa ni moom pare ngir eh, dékku événement moom def na ko ba yàgg kon. Mm-hmm. waaw mu ni eh, pare tey suba enchaîné la. waaw moom kay daan nekk dañoo nekk communauté boo xamante ni nag daanaka duñ wàcc. boo dee xool yoonu murid moom ni ñuy doxee mooy ne téeñ bi du deñ seen bopp. Mm-hmm. li ñuy yenu nag mën naa ko waaye suñu yenoo dara ba teg ko rek duñ teggi téeñ bi dañuy fas yéene yeneen waat dara tegaat noonu lañ koy jàppoo rek. Mm-hmm. waaw. Euh, Touba <laughs> Touba assistance médicale mm-hmm. euh, vingt ans après am na lu ngeen si jot def tey jii lan mooy seen perspective. waa euh, laaj boobu nag moom dinañu neex lool ndax euh, daa mel ni temps yi ñu ngi ci projet yu rëy rëy te euh, lépp waralu ko mooy fexe fexe ba dundinu doomu aadama yi gën a ñoŋ te ni ma ko waxee sànq xam nga daa am lu ñu loo mooy li sama borom waxoon ci alxuraan ci ne képp ku dundal benn bakkan rek mel na ne nga dundal nga àdduna bépp mhm. kon loolu tas bu rëy rëy la mission la te gis ngeen tubaab yi sax dañ ciy yëngu dégg nga médecins sans frontières dégg nga beneen ONG dégg nga leneen leen loolu kon nekkam ñoom ñoo ci yëngu rawatina ñun ñi nga xam ne suñu borom moo diggee lool ne képp ku dundal benn bakkan mel na nga dundal nga àdduna sépp mhm. donc am organisation yu mel nii day am solo ñuy waaj nag euh, lu ci mel ni clinique médicale bu mag. Mhm. boo xamante ne nii bëgg nañ ko à Touba et à Dakar euh, bu ñu ngi avancé lool ñu ngi ci euh, sàkku ay ñaan waaye it di ci. ubbil buntu partenaire yëpp koo xam ne bëgg ngeen ci accompagner ndax it volonté bi mooy du wutum koom déedéet ñu nutuñu xaalis waaye buñ ko taxawoo ni dañuy fexe nun jàppalee nit ñi ci seen wàllu wér yaram mm-hmm. nga xamante ne nii ci loolu la ñuy dox association bi bépp projet boo xamante ne nii amaana teg na ko mu mel ne luy dugal xaalis ndax xam nga boo tegoon clinique yi faa mu am ay tarif mm-hmm. même si da ko def ay tarif social yoo xamante ne nii nit ñi daan ci gis seen bopp waaye loolu di duggaat sax nekkul lu ñuy séddoo suñu biir ñu déedéet koo xam ne chaque weer dangaa warloo di jël sa xaalis di def ci biir association bi kooku xaaroo ñuy ñuy ñuy association bi di la jox dara nga xam ne à ah, but non lucratif la lépp loo xamante ni daje na fi donte ay milliards la su boobaa dañ koy jëlaat dugalaat ko ci activité euh, association bi te mooy mooy taxawu nit ñi ci seen wàllu wér-gu-yaram. man mhm. noonu lay demee. Mhm. Euh, waxtaan wi am du am na solo docteur Abdoulaye Sarré wante mu mel ni liñ ñu cëraloon ci waxtu wi yegg nañu ca. waaw dañuy sant rek euh, ñaan sunu borom ni nga tuddee sànq événement bi ñu jëm. mu defal ñu tawféex ñu dugg ci ci jàmm dund ko ci jàmm te génn ci ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. la ca topp mooy mbas mi fi ñu mi toll nii ñu gën a moytu gën a fagaru waaye tey gën di ñaan ni ko kilifa gi waxee rek ci nañu yéetal yàlla nee na doyloo sëriñ bi tey ñaan. Mm-hmm. ginnaaw nag mooy fexe ba sàmmantoog waa kër docteur li nga xamante ni ñu ngi ñu koy digal. Mm-hmm. bu nu waree takku mas ñu takku max bu nu waree euh, raxas suñu loxo ñu raxas suñu loxo lépp loo xamante ni gis nañ ni bu nu ko defee mën nañ cee jëlee ak wér te duñu wàññi dara. Mm-hmm. su boobaa nañ ko def. Mm-hmm. tey ñaan suñu borom jëlee ko fi di leen sant bu baax a baax waa Rewmi FM ndax daa mel ne yéen it ñun waa réew mi lañ fi nekkal waaye ci yéen seen tur wuy na ko réew mi ngeen fi nekkal. Mhm. kon ñoo ngi leen di sant a baax a baax ci jotaay euh, sant ko bu baax a baax moom docteur Abdoulaye Sarré mu nekk chirurgien dentiste waaye nekk tamit président bu tuuba assistance médicale xam naa ne euh, ci biir waxtaan wi sax euh, bàyyi ngeen ci xel bi muy wax lépp jëm ci wàllum wér-gu-yaram dëgg la pas-pas bi mu ngi fa woon waaye bi ñuy wax ci lépp lu jëm ci wàllum assistance médicale boobule foofu itamit tamit euh, maanaam euh, deretu taalibe bi yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy déglu xam naa ni ressentir ngeen ko bu baax a baax comme li mu wax rek yoonu murit moom euh, ndigal jëfalay wuyu toog ñuy ñaan yàlla rek yàlla yóbbu ñu ci bës bu mag boobu di màggalu Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasuul gërëm ko bu baax a baax moom docteur Abdoulaye saxe ma fàttali na yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé Fatou Baba Fall moom moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak i tamit beneen invité